ndaxte ñu ngi kon di jaale bala may wax loolu sax damay wax ci mbirum dee ci boppam génn àdduna génn àdduna toujours damay wax ne ñun duñ ci sore ndax day mbir moo xam ne mbirum sunu borom la teel nu ko wax ne fii dama leen fii indi rek mais da ngeen fiy jóg kon li ngeen fi indi pour waaje fi pour mën a dem foo xam ne foo ngeen di sax kon loolu moom teel nañu ko wax te moom lañu gisat nag gisaguñ lu ko dindi ba léegi ku la wax loolu nag nga di ko gis mu la ne fële tamit boo fa ñëwee dafa am lu ñu loo fa war a fekk kon loolu moom wax ji jeex na doyoon na sax loolu waaye téewul ci mbaaxam mu indil ñu diine muy ay orientation yoo xam ne fii ngeen war a jaar boole ca loolu muy avantage bi leen nati kon dee moom du ci sori du jërul sori noonu waaye bés bu set ñu gis ko waaye nag léeg-léeg bett gi mu lay bett ak nekk ak nit bu mujj nga di ko gis gisatoo ko kooku fokk doomu aadama dana ko mettitlu waaye mbir moo xam ne ñëpp koy def te kenn xamul kañ nga koy def te kenn xamul foo koy defee kooku dafa mel ne di ci sori te ki koy def kenn rek la moo ko xam malaayika mi nga xam ne mooy def sax dañ koy jox liste moom na koo xam ne du mën a xam waxtu lu dul bopp jotee suñu borom jox ko ne ko demal def ko kon li ci am solo rek moo ñaan yàlla rek yàlla dimbale ñu ñu nekk waxtu ne di ko waajal mooy nekk ci lu mu digal ba bu ëllëgee wax fu mu nu ko fekk rek ñu mën a am rafet njot ne la moom moo ko yëpp waaw du tee nag ñu gis kon xew-xew yi am fii muy bi ci jiitu mooy sunu mag Pape Pape Malick Sy di sëtu si Sidaas Malick si di doomi sëñ Babacar si euh, ak ki nga xam ne mooy xalifa cene ba Cheikh Ahmad Tidiane Seck ak kilifa yi nga xam ne yëpp xëy na lim bi euh, danañ ci doon ñu tàmbalee ci ñooñu euh, li nga ci wax it am na solo lool ndax suñu relation boo nee relation ci diggante nit ak sax day mel ne relation mooy mooy mooy lu jokkale wante dafa mel ne lu mës sa tàggoo boo ne jokkale na kon xëy na boo waxee sax relation day mën naa rafet waaye ñun ñu ne ci biir xam nañ ne amul foofu li am foofu mooy jokkaloo toujours moo am tàggali ko amu ci wala di xamante ko duggante ko gën foofu nag danañ ci sawar a wax lool ci diggante boobu muy diggante kër Cheikh Sidi Aj Malick la ca lañ seq mooy sëñ Touba ak bokk ga kooku moom nit ku ne war nga war nga caa xam dara waaye bokk googu sax dëgg la mooy deret ñu bokk wante li ci gën a am solo tamit mooy bokk li nga xam ne mooy li leen taxoon a jóg mooy diine lislaam ngir di ci yàlla may leen ñu lijjeen ñu am ci ba di ci gindi nit ba nit di xool ci ñoom ngir mën a dëgër ci loolu kon googu ñaar yu yëpp dafa doy sëkk suñu diggante nag ci loolu ci suñ suñu wàllu bopp nga xam ne du man rek xëy na ku ne am nga ci loo ci mën a wax waaye ñun am nañ ci luñ ci mën a wax euh, ndaxte moom moomu di Pape Malick euh, bi ñu gëjee gisante booba Pape xalifa kebe du papa Abdou Aziz Kébé professeur Abdou Aziz Kébé moo waxoon ni man naa ñëw ak moom ñu ubbil ko benn école inaugurer ko benn école mu doon tabax ca Thiès keroog mi ngi ma naan sëñ Cheikh de daf may wax ne ma li ngeen seq yow sax moom sax xamu ko te loolu bariwul ñu xam loolu ndax bi ma daan dem ci ay waxtaanam yàgg na boobu sa xale la da daan wax ne même su ma ñëwul nañ ma bàyyil sees bi may toog mooy Cheikh Mame Tidiane Pape Malick nag di nit ku yiw doomu nit ku yiw moom bare na ndax nit képp koo xam ne nitu yàllaa la ci nga jóge kooku nit ku yu doomu nit ku yiw nga wante yiwee nag moo yomb kooku nit a koy lijjantil boppam yiwee nag du sol mbubb mu rafet parce que mbubb emballage rek la ci dal mën ngaa jël ay kayit walla ay sagar wala suuf emballé ko emballage bu rafet boo xam ne boo ko yëkkatee di ko tàllal ne ku bëgg dañ koy njëkkante waaye boo demee ba ci biir boo ko teqalee muy ay sagar danga koy bëgg a sànni kon emballage maanaam li nit ki di feeñ ci kaw kooku mënees def na bari ñu koy tudde ak yiw may yiw ci biir nit la jikko la kon bu la yàlla boolee nga bokk ci fu yiw ba noppi am def sa yiw boole ca ñu xool sa biir yiw googee di dëgg muy ngay doomi nit ki yow di yiw te lu jafe la nag ndax jikko la mu bokkoon ci ñu ko def def ko lool waaye nag ku xam ne di yar ba ak nañ leen def nga xam ne loolu foofu la fekk keroog bi mu sëñ Moutalla demee te sëñ Cheikh Amadou Tidiane yónni ko ci man dafa ñëw ma fekk ma ci mbaar mi nit ñi bare lool ma ne ko te jàll sëñ mu ne ma mukk fii nit ñi toog laay sëñ Cheikh yo indi lu lu bare ne waajuram la foofu la toog ma wax wax mu ne ci biti rek buñ noppee mu daal dina day dem diw nit ku woyof nit ku am solo waaye nag loolu lépp du ñu bett bu dee ki nga xam ne mooy Cheikh ma Tidiane si wax naa leen ko ne leen loolu la doon def jox keroog it loolu la ma fa wax foofu nga xam ne moom moo ma ko waxal boppam nag nga xam ne kon moo ko wax ne ko la ma seq ak moom ak la ñu seq te loolu kon fi yu am na solo loon bu dee ci wàll yi ci des tàmbale ko ci sëñ Mansour sëñ Mansour su ma fa masaan dem ndax mu naan kaay ci sama laboratoire xam nga moom ko am xorom lu woon di sax ma ne ko lan la ko mu ne ma sama néegu bopp bu ñu duggee ba ci biir mu ne ma sama néegu bopp nga ñëw fii mooy sama laboratoire yow rek laa fa may nga kooku tamit kon xam na li mbir mi bu dee sëñ Abdou si ñoor bu ñu génn ci biti réew tase fa ci conférence yi ñu daan def eh, dana ànd ak njabootam Moustapha Cissé ñoom Moustapha Niang wala Moustapha si beneen bu bu bu Louga waaye fa mu may waxtu bu ne la muy wax ak man di ma ko ber xaw ma de foogu ma ne dana ko wax ak ñooñu su ma ko masaan gis toujours it dama ko naan sëñ bi gannaaw nun nun dañoo nekk ci ñii nan làkk suñuy pël wane rek ne démb loolu lépp da nga koy def ngir wane ne la woon foofu du fa jóg ba ci sëñ Maodo ba ci sëñ euh, Mbay si kër si mi daf maa waxoon ci fan yële rek ñu gàmmoo ba noppi ne ma Touba de xam naa fa ñoo bokk voilà xam naa waaye nag danaa la ganesu ganesu goo xam ne yor jaamay tax a jóg far yàlla def événement yi am saa bu ma tasee ak njabootam fu ñu mën a tase ci àdduna bi danañ ma wax loo xam ne wóor na ma ni moo leen ko wax ndax maa ngi moom rek ko seqoon mu di ma am ko ma encourage ñooñu nag li may wax toujours ne Euh, nit ku baax ak nit koo xam ne euh, euh, am na nit ñoo xam ne bu ñu la dee wax wax buy rafet wax naa ko ba tey wax bu niru lu neex bu ko bu ko sugg suggee da ngaa war a jàpp ne ñooñu dañu la bëgg soññ dañu lay encouragé pour nga gën a góorgóorlu comme noonu ma wax ci sëñ Abdou Aziz bu ñu masaan tase moo ci biti bi am na yoon boo xam ne dañu tase xaw ma def naa Tripoli la ci jamonoy yi guerre bi ci conférence yooyu boobu Moustapha Cissé nga fa boobu Moustapha Ñanga nga fa ak Moustapha si oustaz lañ koy wax keroog Moustapha si moom day def toujours ci discours sax da koy woy moo sëñ Abdou ñëwul woon booba daf ko délégué woon ñooñu la délégué woon bi mu leen délégué Moustapha si daal di jël kàddu ci turam dal di def ay bayit pour woyee ko discours def naa daf doon wax fa fii Moustapha tamthiluhu sama Moustapha kata Moustapha fa kullu min naa yu mathilu maanaam ñetti Moustapha yooyu Cissé Moustapha Cissé ak Moustapha Ñang yàlla yàlla yërëm ak moom Moustapha si euh, wax bu noppi ma ne ko nag man duma woykat du woy moom du ko def daay bind mais du woy ma ne ko léegi de baax comme yow yéen wasnu yi da koy segg mais dama ci dugal baat boo xam ne même boo ko dee seggaat il faut nga def ko oh, ma ne ko da ngay wax fay fii Moustapha tamsiilu ko tuma Moustapha kata Moustapha Mamour kullum yi mapsilu dugal ci sama tur moo tax euh, dafa am benn jotaay bu ma doon dem ci ndaje moom itam yëpp baax na xam euh, ñu cérémonie bi am naa ne ci aéroport la woon bis bu ñu tuddee woon sëñ Mourtada kilifa yu bari nekk fa am ci sama rakk du ma wax tur doomu sëñ Abdou Aziz si ñëw ca defe naa bu ma ko fàttaliku bu dul daaw góor ñooñu di ànd ndax xam ni ñu baax ay géwél xam nga géwél dafa am original ak chinois waaw am na géwél yoo xam ne ñu am solo lañu mais am na chinois nag ngeen baal ma wax ji chinois bu ñu ko waxee du qualité bi du kii bi mais dafa am qualité chinois boo fa demee am na marchandise yu baax yoo xam ne première qualité deuxième troisième waxin la rek ngeen baal ma nag mais am na xëy na sax ci lépp la am keroog ñuy moom nag ñooñu nag ñu baax lañu ñu am solo la ñu daaw jóg daal di ne di ma doom doomi sëñ Abdou Aziz ji ne ko kii su mag a wax a wax a wax ba doon ma ne ko def nga lu baax waaye kii bërki démb laa ko gëj a jot téléphone te bu muy présenté dafa mel na kuy présenté ñaari ku jóge Kajoor ak ku jóge kii pour wane ne ma ne ko du ñu umpante moo tax lu ci nit di wax na koy teelu loolu nit ñi dañ koy war di xam parce que am na ñoo xam ne dëgg la am na ñoo xam ne loolu mooy suñu liggéey parce que accident de l'histoire am na fu ne diine yàgg na ci am ndaxte bu ñu xoolee ci dix-huitième siècle am na ay jihadisme yoo xam ne ay jullit lañu loolu jërul sax di ko répété parce que histoire léeg-léeg da koy déformé mais boo ko mënta déformé tamit nga nga nëpp nëppal ko euh, loolu mooy ku ne xam na ne ci dis bi e siècle jamono Cheikh Omar Ahmad Cheikh ñoom Mamadou Darame ak ba ci ak ak Maba joxu ak Cheikh Amadou taal moom doomu Cheikh Omar ñu bari ci ñooñu jihad yooyu. loolu am na ci sax am na ci loo xam ne euh, dañuy wax ne accident de l'histoire mais boo xoolee accident de l'histoire tamit man nga ko tàmbale ca jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen nga xam ne rafet lu bari ci ay sources ci lañ ko jëlee mais mook Sidna Ali gaar nañu xeex nañu loolu kan mën ko mën a expliquer lu dul accident de l'histoire rek xeex nañu kon jombul ci diine tamit xëy jamono yooyu nga xam ne mooy dix ginnaaw bu Cheikh Amadou Bamba ñëwee ci ci dix-neuvième bi ci dix-huitième bi ba ci fin de ba ci début de mais la ko jiitu bari woon na ay guerre yoo xam ne sax ñu ñëpp ci daan dem ma ba Jaxu bi mu wootee Kajoor bi mu wootee Saalum ndax doon Anta selee nga ci woon Cheikh Abdoulaye Niass ak ñooñu nit yàlla ñoo xam ne ñoo ko ëpp xam-xam di ay doom mais dañ ba mu leen woo ci loolu yàlla dañoo dem kon ñoo ñëpp dañu doon defal mais loolu lépp lu ci ne am na ay erreur ci Cheikh Omar yooyu yëpp jarul di wax kon loolu mas naa am mais bu ngeen bu ngeen seetloo ne xam ne dix-neuvième siècle bi yëpp jamono yii kenn mës sa dégg kër Cheikh Seydi Hadji Malick kër Laayeen kër nangam ñu ngay xeex ak jàppante mais waxtu wu ne nag am na ñoo xam ne loolu mooy te xam nañ ne loolu mënul amati mësul am sax mais du am parce que doo mën a comprendre nit koo xam ne amul histoire dem ci nit këri diine yoo xam ne sëñ bi lañ bokk ci seen biir ak lañu daan seq ci waxante ay taalif waxante wax ju rafet waxtu wu ne ngay bëgg lu daxfee mais dama leen daj nañ ci nopp la parce que mënul am nañ jàng histoire xam bu baax man lii ñu fa wax rekk ku si néew sax nga xam ne sama relation bari nañu ko xamul te fekk dara lu ñuy umpante ci sunu sunu ci biir yi fi dafa dul dafa dul am moo tax Euh, nu ngeen nuyu ndax sos nañu maa ngi koy fàttali léegi sama rakk bi Abdou Cheikh Abdou ma ne ko defe naa bu dul 78 yàgg na 79 dafa amoon mbootaay bu ñu karye woon ñu ngi ko karye woon Kaolack booba euh, Cheikh Cheikh Ibrahima Niass a ngi fi defe naa ne euh, ñu ne woon day kërifi kilifa diini yi dañoo bëgg a sos ndaw yi fa nekk sos loo xam ne dañoo bëgg a sos luñ luñ koy doxale keroog ba ñuy dem man mii la sëñ Abdoulaye yebal man ak Abdoulaye ambassadeur ne nañ ko demal ca ndaje ma ca Kaolack ci ña ci euh, kër Baye ñu sosoon loolu gannaaw bi la jaxasoo ba loolu xëy na kii waaye lu amoon solo la loolu lépp mooy firndeel ne euh, fokk kon loolu diggante bu yàqu diggante bu yàgg la euh, kon loolu man sama diggante ak ñoom wax naa ca tuuti lu ma ci wax rek am na lu bari lu ma ci lu ma ci loo xam ne mun ma ko wax waaye nii la demee te loolu moo continuer ba léegi sañ mbay mii fu mu waxtu wu ne day wax loolu ba dem démb kon ñoo ngi koy jaalee Pape Malick di ko jaale waa kër Cheikh Seydi Hadji Malick ñëpp di ko woo jaale it waa kër sëñ Touba ndax noo ko bokk di ko jaale jullit yëpp di ko ñaanal ay maamam teeru ko maamam Cheikh Seydi Hadji Malick ak maamam Cheikh Ahmadou Bamba ak ma baayam yi mu fa fekk xam ne loolu rek la àddina moom noonu rek la mën a demee yàlla nañ ci nekk ci lu baax rek